sëñ Ahmadou Tasrif Sougou fii ñu nekk nii mooy euh, euh, Daaru Xudus quartier bu ñuy wax Touba Wadane ngi gis gi ngi gis gee ngeen di gis sëñ Ahmadou Tasrif bu sëñ Jéeri toog na fi ak sëñ Abdoul Ahad maa fi ubbi daar daara alxuraan jee ngeen gis tudde ko sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma fii mooy kër sëriñ bi euh, kër gi mooy kër sëriñ Sidi Mbacke moom sëñ am Fall moom sëñ Baara sëñ Soxna Binta Sougou moom sëñ Jéeri Wadane li fi xew nag dafa am ay mbokk yoo xam ne dañ doon topp ak waay koo xam ne dañ ne dafa watu watu woo xam ne méngoowut ak ñoom niñ ko bëggee ñu daw waa ji daw ñu daw dugg ci daara ji biñ fi duggee fekk fi ay xale juyoo a xale yi dóor ci benn xale ba deret ji su tuuru ci kawam Serigne Sidi Mbacke génn ak nit ñi di waxtaan ak ñoom ci njekk ak tranga mbooloo mi mi mu àndal ne ko sëriñ bi loo bëgg mun a xanaa ñu daal di jël xale bi daal koy faji mu mel ne diggante boobu ñoom ñi ngi jël ay ay nit di leen jàpp di leen arrêté di yóbbu ñoom Baye Fall yi ak di leen dóor ah, bi ñu defee loolu sëñ bi bi muy dem di dugg ci kër gi baneen groupe ñëwaat woo renfort fekk leen su ngeen duggee da ngeen dugg ci biir kër gi am na ci ay Eh, néeg yoo xam dañ ko dajji am na armoire yoo dañ ko dajji saal bi dañoo toj mbooleem fenêtre yi écran yi plan yi fi nekkoon yëpp ñu jël ko yàq taalate otaam gaañ fi ay nit jàpp leen yóbbu leen bi ñu defee loolu yemuñu ci ñoom de man mii sama daara jëlee nga xamee ay dongo yu ndaw ñoo fa nekk boo demee da nga leen gis am na ñu daax ñu daw dugg ca daara ja ñu dem tëf fa ba dajji nañ robine ba fekk sax sama njabootu bopp goo xam dañoo feebar ñu traumatiser leen jàpp afa ay nit yóbbu nga xam ne événement boobu daal noonu la demee. waaw lim bi fi ñu toll nii xamaguñ fu ñu toll ndax euh, liñ fi fekk ci ab lim ci ndonga dafa bari te ñi ñuy yóbbu dafa bari waaye en daal am na ci ñaar ba ñett ñoo xam ne seen i gaañ gaañ métti na lool ñi ci des nag image yaa ngoogu ñi ci des nag kenn xamul nu ñu toll. ñu le nag ñu jàppale nag loolu ak tooñ la goo xam ne tooñ nañ ko Serigne Jéeri Wadane ak tooñ la goo xamee ne tooñ nañ ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara goo xam ne tooñ nañ ko Serigne Mountakha ndax Serigne Mountakha buy joxe ndigal joxe ndigal violence de sëñ Touba ci boppam jàmm rek la ma sa woote kon li xew fii du ndigalu sëñ Touba man jàpp ma ne ndigalu sëñ Touba la ñun lan la ñuy mooy yoon def liggéeyam ci lii lii nii yoon def ci liggéeyam yoon def ci liggéeyam sëriñ bi nag ñun duñ ko jox ndigal lépp loo xamee ne lu sëriñ bi bëgg la su ko defee ànd nañ ci ak moom waaye nag lii nag wax dëgg yàlla ak lu lu lu ñaawa ñaawa ñaaw la lu ñaaw ñaaw la loo xam ne suñ ko arrêté wut mën naa am ay jéye ci dëkk bi ndax mer nañ te dañ leen di jéem a calmer waaye am na loo xam sax mënuñu ko loolu daal mooy mbir mi bu ko defee moo jur naqaru taalibe yi waa daan yëpp ba ñu wàcc fii tey ci mbedd mi te dañ leen a waaye dañ doon rayante fii dañ leen a dañ doon rayante fii moo tax sëriñ bi yebal ma na ma boo demee mbooleem ñi ay kilifa ca dëkk ba na nga jokkoo ak ñoom ñu ci neex a waxal di ay nit waxal moom ci lépp loo xam day liggéey sëriñ Touba woo naa mbooleem kilifa yi bay Faal yi. ni sëñ bi waxe tooñ nañu ba ci kanamu yàlla lii ñu def naqari nañu ba ci kanamu yàlla waxuma la dara mais xale yi nga xamante ay tur tànk leen di jàng ñoo xamante ne ay jàngalekat ay jàngalekat alxuraan di xale yi ndaw ñoo xam ay fukki amuñu ay fukki dugg ci seen biir di leen dóor mel na kuy dóor ay mbaam loolu ñu ngi koy lu ba ci kanamu yàlla dugg ci biir néeg soxna sëriñ bi soxna mu suusufu di sama rakk mboolem néeg ba la fa nekkoon maanaam ñu yàq ko yàq armoire ba yàq lépp la nga xam ne ñaari ñaari oto bi nga xamante ne sëñ Sidi amoon na oto bi nga xamante ne waaw oto bi nga xamante ne barki déemoo Njaay lañ ko jox sëñ Sidi noonu lañ ko yàqee yaa ngi dégg dégg naa sax sëñ si boppam jot nañ kaa dóor te loolu teg ñu ko fenn bu fekkente ne ay Baay Faal lañu loolu ñu def teguñu ko fenn Cheikh Ibra digalu leen ko te ñun nag kenn njëkkuñu sëñ Tuubaa te kenn ëpp ñu mbooloo ñun wàkk sëñ bi kenn ëpp ñu baati lu ñu waay di jaay rek mën nañ kaa jënd ay 5 heures la gars yi commencé fële ca wetu euh, ba avant nga egg corniche ñu ñëw ba fii nii côté yooyu noonu lañ jàpp benn doom doomu sëñ bi watuwul dégradé solul tubay ju xotteeku solul kiloot jàpp ko dóor ko ba nga xam ni boo bëggee mën naa laa wan mën naa mën naa laa wan vidéo bi sëñ bi gis loolu di ko naqarlu sëñ bi ba mu gisee loolu di ko naqarlu dem ba ca ñoom di leen laaj bañ laaj bañ leen laajee dañoo saag sëñ bi dañoo saaga sëñ bi sëñ bi di leen de yéen de xamoo leen ki ngeen di waxal sëñ bi ne waa kon ko noonu la na sëñ bi àndaat ak ay mbool ay ay ay ay ay ndongoom ñëw ba ci kër gi ni noo demaat leen ci liggéey ba ñuy commencé doon fondement ak a boole euh, ciment beeg suuf si Baye Fall yi jekk-jekk wàcce fekk ay camion camion yu bari wàcce fekk seen i kuur ak seen i jaas yi ak seen i paaka parce que sëñ bi dafaa demoon di leen laaj sama ndongo bii ngeen dóor ba nga xam ni ba nga xam ni ah, deret ji di génn lu ko waral yaa ngi dégg ñu commencé fa di saaga boo fekk na ba seen yaram tàng na ndongo bi deful dara deful dara fekke ko fa fekke ko ci boole ñiy dóor xool ñu si sol xool ñu ko dégradé danoon commencé di dóor di jam nit ñi di saaga nday ñëw ba ci kër bi ñëw wàcce rek jubali ci biir kër sëñ bi ndongo yi nag ay góor lañ ku leen fi fekk di leen bëgg a néewal doole da jug danañ jug xeex ak ñoom yaa ngi dégg ba ba après nag ci la Baay Faal yi yëgalee ndongo yi ca kaw jàpp leen di leen dóor ba kaw gi yëpp boo fa duggee ay deret la bu la neexee ñu ànd nga fi kaw gi yëpp ay deret la jël ndongo yëpp yóbbu leen di saaga sëñ bi dóor sëñ bi ba pare dañuy yóbbu sëñ bi te sëñ bi dafa am wàll ay Baay Faal lañ ay Baay Faal lañ te sëriñ bi sëñ bi dafa am wàll ci kër sëñ Baara Mbàkke sëtub sëñ Baara Mbàkke doomi sëriñ Touba sëtam la ba pare nekk sëtu Cheikh Jéeri Wadaan yaa ngi dégg waajuram bu jigéen daa bàyyee ko ci sëñ Jéeri Wadaan Cheikh Amadou Tarsi Sougou moo jur waajuram bu jigéen yaa ngi dégg waajuram bu jigéen ak sëñ Mama Sougou ñu bokk nday ak baay yaa ngi dégg sëñ bi am kër am wàll ci kër sëñ Baara Mbàkke sëñ Baara Mbàkke doomi sëriñ Touba la mooy sëñ Baara Mbàkke mooy sëtam direct yaa ngi dégg léegi nag affaire yi naqari nañu ba ci kanam yàlla mairie koñ bi yëpp génn nañ ñu ngi jooy xale yi ñu ngi koy naqarlu tànn nañ pono fii yëpp dañoo bëgg lii yam fi jeex fi tàkk. Basirou Fall moom Serigne Cheikh Fall Khady Gueye euh, bokk ci euh, kuréelu say saytu forme jiite kuréel numéro un euh, ci mën a leeral. waaw liñ ci mën a leeral mooy kuy jóg di defar rek la nga teeg kuy yàq. buñ tasewunte woon ak ko yàq li am du am sëñ bi dañoo digal ndigal loo xam ñëpp ko dégg am lu bëgg ci dëkk bi am lum ci ciy moytulu buñ jógee di dox nag gis lu mel noonu dañ koy saafara ci ak am xel bu mënta nekk ñoo seet yeneen pexe loolu moo indi histoire bi gis nañ koo xam ne dafa watu dégradé la tax la tax ñu gis ko tim terrain bu ñu déclaré woon ci allée yi ñuy fubal fa lañ doon dem ak kuy kuy jaay pon di ko tux fa lañ fa la ñooñu doon dem bi ñuy dem ba yàgg ñu gis ko dégradé yu yorub otoom ñu jàpp ko ne ko sëñ bi lii da koy tere mu mu dëgëranteeg ñoom bopp ni du wat dégg naa ko nag moom mu wax si rajo waaye li mu wax ak li am bokkut bi mu ne bi mu ne bi mu ne du watu ñu wax ko ne ko euh, mënees na laa wat waaye boo nangoo ñu boole la ak ñaar élément ngeen nga dem ci fu la neex nga watoo fa mu d'accord loolu bi mu d'accordé loolu ba ba ñooñu war a dugg ci oto mu taal otom daw dem dem moom moom waa yooyu waaw léegi nag gars yi topp ko ngir bëgg koo jàpp mbooloo mi newoon si oto yu mag yi am ko fa des ci fiñ ñu woon bi mu fa desee nit ñi fekk fa taamu ne ko sànni xeer moom mu daw tëju si mu néeg moom xale bi mu tëjoo ci mu néeg ñu wax mbooloo ma fa newoon ñu ni leen am na ko bokk si yéen ko fa des ñu ñëw di ko jël si sëriñ daara boobu ak i dongaam riposte taxaw seen kaw terrasse di sànni di sànni Baay Faal ay xeer buñ doon ñu ragal wala ñu ñàkk jom dañuy daw waaye dañoo taxaw jàppoor bari na si ñoo xam ne tey jii si Baye Fall ña ngi ci hôpital ba ñenn ñi dañoo faj ji ñibbi seen i kër ñii ay barre de fer lañ leen ñii muul am na am na ku ñu wax suñ maam Mbaye moo ci otom lañ toj ba oto bu fam ne mënu faa jug ñoom gis naa leen ñu def vidéo wane seen oto sëriñ ñi dañ koo toj ñoom seen bopp ñoo ko toj ginnaaw ba ñu fi jógee mu ñibbi ndax ñun dem nañ dugg nañ dem nañ ba ci kër ga bañ fi jógee ma ñibbi lañ toj huit heures kër ga toj oto ba wax ni ñoo ko toj ginnaaw buñ ñeme woon tam duñ nekk bañ jóge fa dem di li lijjanti ña jàpp ñuy taal ay ay ay pono naa seen def yi ñu ngi leen xaar bu fekkee ne dañoo bëgg li ñu lijjanti ko ci ndigal li sëñ bi santaane ñu ngi si bu fekkee ñu sëñ bi jox fii ak néewu leen arrêté leen koo taxaw koo xam yaa ngi taxaw bëgg a dox suñu digganteeg ndigal loolu da ngay jaar suñ kaw war jaar sa jaar sa kaw loolu lañ ci wax bu fekkee nag mënees na ko lijjanti si li nga xam ne mooy war mooy dëkk bi ñoom seen i kilifa ñu ñëw waxtaan ak ñoom lañ ca war a def ñu def ko loolu ñu ngi leen see xaar bu fekkee weneen yoon wii ñu jaaroon tamit lañ bëgg a jaaraat kenn ak keneen koo xam ne yaa ngi seetaan li na loolu nan ko nan ko bàyyi xel ñun ndigal lañ jot lu soppi loolu loolu ñu ngi si ñu ngi ñu ngi si loolu nañ ko xam képp koo xam ne yaa ngi seetaan loolu na nga na képp koo xam daal yaa ngi ci dëkk bi li sëñ bi tere nga fas yéene woo ko bàyyi ñun li ñu sëñ bi digal fas yéene nañ koo def wasalaamaaleykum wa rahmatullah